bismillahi arrahmani arrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq naasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim alxadiisu thani cashar xadiisu wala fukkeel ak ñaaru xadiis wala xadiisu fukk ak ñaar ah nee na an abi hurayrata jëlee nañ ci sayiduna abu hurayra رضي الله تبارك وتعالى عنه قال منه قال رسول الله أنت يلا محمد صلى الله عليه وسلم وحننه من حسن إسلام المرء bokk na ci rafetug lislaamu nit ki tarkuhu ak baham maa laa yaanihi lu ko jublu wut lu ko concerné wut bokk na ci lii rafetal lislaamu nit ki tarkuhu ak bàyyim maa laa yaanihi lu yoonam nekkut xadiisun xadiis la xasanun ju rafet mm-hmm. wa rawaahu mm-hmm. solo na ko a tirmidiyu mm-hmm. imam tirmidi wa xayruhu ak kudut moom hakada nii imam tirmidi solo na hadis ji ci kitaabu zuhd ci baabu ma jaa fi man takallama fi ma la yaani naka noonu ibnu majata soloon na ko ci kitaabul fitan mm-hmm. ci baabu kaffi lisaani mm-hmm. fil fitnati xadis mm-hmm. ji bokk na ci xadis yi nga xam ne dajale nañu maani lislaam yépp yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne man kaana yuminu billahi walyowmi alaaxiri falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bés penc na wax yiw mbaa noppi am ñu ne déedéet na wax yiw te noppi xam nga yiw moom boo ko waxee rek mooy yaa ngi ci li sa yoon nekk mm-hmm. boo gisee lu sa yoon newut mm-hmm. nga noppi mm-hmm. fal yaqul xayran na wax yiw ndax ci loolu la yoonam nekk aw li yasmu tam noppi ci li am newut kon xadis ji niru na xadis jole lislaam moo boole jam boole maxasin mm-hmm. yi rafet yëpp a ngi ci lislaam mm-hmm. waaye mm-hmm. yi rafet yi nekk ci lislaam yëpp a ngi dajee ci ñaari baat ñaari baat yooyu sama borom tudd na leen ci suratu nahl inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaan yàlla de digle na hmm. mandu hmm. ak rafetal hmm. mandu min xusni lislaami lmari bokk na nag ci taaru lislaamu nit ki tarkuhu bàyyi lu yoonam nekkut doomu lu ko nekkut dana rafetal lislaamam hmm. dana jàngee ci xadis jiit ne hmm. ku soxlawoo lu yoonam newut hmm. lislaamam taxut koo rafet soxlawoo lu sama yoon newut màndarga la ci ne sama lislaam rafetagut ba léegi loolu nag lu bari lay tàbbi da nga nit nga fekk ko muy wax ba suba li muy wax amul ko benn njëriñ te yoonam newu ci wala laaj mbir yoo xam ne dëgg dëgg ko njëriñ te yoonam newu ci muy dugg ci yëf yoo xam ne dëgg dëgg amul ko njëriñ te yoonam newu ci yooyu yëpp li muy tegtale mooy jaam bi lislaamam dëgëragul rek kon nag jaam bi dafay jaadu toujours muy sàkku liy rafetal lislaamam lépp lu ko concerné wut mu noppal ca boppam ndax ki gën a sonn ci nit ñi mooy kii lijjanti lu yoonam ne wut mën ko indil ay problème yi àdduna te ala fokk mu indil ko problème yi àllaaxira ndax boromam daf ko bàyyi loolu mu léegi nag laaj dana dikk ndax digle mbaax ak tere mbon dañ koy dugal ci lu yoonu nit ki newut maanaa léeg-léeg nga wax ak nit koo xam ne ma ngay def lu mu warta def nga ne ko sëriñ bi lii de lislaam def ko tere mooy la sa yoon newu ci toppatool sa bopp wala lii de soo ko defoon lislaam digle na te baax na dana la yokk muy la sa yoon génneel sa affaire ci man topp tool bopp bu ko defee nga ne ah waaw ku ndey ak sa bàmmeel bàyyi ma topp tool sama bopp loolu it digle mbaax ak tere mbon am na méthode ga waaye waltakum minkumu ummatun yad'uuna ila al wa yaamuruuna bilmacruufi wa yanhawna anil munkari ak kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna anil tax sa yoon nekk ci digal bépp jullit wala képp koo mën a digal mbaax mbaax moo tax sa yoon nekk ci tere bépp jullit wala képp ko mën a tere mbon képp koo mën a tere tere ko képp koo mën a biir laaye ko biir ndax digle mbaax tere mbon dafa concerné umma lislaamee bi yépp rawatina nag sa njaboot moo xam sa ay mbokk yu góor jigéen raw say doom soxna ñooñu nga xam ne ñoo la gën a jege mm-hmm. rawatina ñang ca yilif mm-hmm. yàlla la wax ne mm-hmm. yaa ayuha alladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran naaran waquuduha annaasu walxijaaratu yéen ñi gëm fegal leen seen bopp ak seen ñoñ safara woo xam ne mat ma koy xambu ba muy takk Mm-hmm. duhu dara lu dul nit ak i doj mm-hmm. insha allah boole musal mm-hmm. ñu jàll ci alxadisu thalithu athalitha achar mm? alxadisu thalitha achar fukkeelu xadis ak ñett mm. nee na an abi hamzata mm. jëlee nañ ci abu hamzata mm-hmm. dàkkante la mm-hmm. turam mooy anas mm. bini malikin mm-hmm. anas doomi malik radiyallahu taala anhu yal na yàlla gërëm ko mu am it beneen titre bu rëy hmm. xam ne ku ne ñee na ko ceex mooy hmm. xaadimi rasulillahi surgaab yonentu yàlla muhammad ba hmm. sallallahu alayhi wa sallam Anas dafay xale bu tuuti bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam di yegsi Madina ndeyam ummu sulaym jàpp ci loxoom hmm. ba ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko hmm. kii la ko jox hmm. ba loo soxla subaak ngoon mu ne ca kon moom anas yonantu sallallahu alayhi wa sallam ma ko yaral boppam mu nekk ci moomit di surga bu wutut saleer mm. waaye yaru yonantu la ndeyam bëggoon ci moom mm-hmm. Mm-hmm. te dëgg-dëgg am na ko mm-hmm. wax na ne mm. liggéeyal naa yonantu fukki at mm. mosut maa wax lu tax nga def lii mosut maa wax lu tax defoo lii maanaam amul dara loo xam ne war naa koo def te defuma ko ba yonentu gëdduma ca mm-hmm. mbaa waruma koo def te def ko ba mu gëdduma mm-hmm. walla mm-hmm. man de jub naa ba mosuma dugg ci lu ma sama yoon newut ba yonentu naan ma lu tax defoo lu tax nga def lii mosuma bayit lu ma sant ba yonentu ma ne lu tax defoo ko walla yonantu baax sallallahu alayhi wa ba mosut ma gëdd ci lu ma war a def ta defuma ko ba lu ma war ta def te def ko ñaar yëpp jamtalu na waaye bu mujj jibee gën a wér ndax anas wax na ne yonantu mos na koo defloo dara mu dem ci mbedd ma ba muy dem ca yoon wa yëfu xale rek mu gis xale ni moom ñuy foo mu ne ñoom dafa toog rek am ku ko faree gannaaw daal di ko kottu mhm. kii bët yi noonu ni mag ñi di fooye xale yi mhm. nee na mu sentir ne yonantu la alayhi wa alihi wa sahbihi mhm. wa ba léegi gëddut ko maanaam xale mën nañ koo yar te duñ ko e, dóor mën nañ koo yar tamit te duñu dindi personnalité miinal ko sa bopp mm-hmm. te du la mm-hmm. Mm-hmm. waaye nii wala fi di yaree wala ñu bari sax eh, dafay dindi personnalité nit ki léeg-léeg it mu gën koo sax ñàkkloo jom nday Aïchatu nee na yonentu mos a jigéen mos a xale sallallahu alayhi wa Mm-hmm. anas ci boppam nee na tinqi yonantu sallallahu alayhi wa mm-hmm. mosuma laal xariir wala diibaaj bu nooyee mm-hmm. ni tinqi yonantu bokk na ci ñi ñu daan wax nan la yonantu mel ndax ya dafa ko jege woon xale la néew na ci mag ñi hmm. àndoon ak yonantu sallallahu alayhi wa ñu ko mën a misaal hmm, hmm, lu tax ndax wegeel guñ amoon ci yonantu ak kersa guñ amoon ci yonantu ak xëybatu gu yonantu amoon ci seeni xol wa man ra'aahu mufaajatan yahaabu bihi amma muxaalituhu fa zaidu rahami mm-hmm. loolu la Seydi Hajj Malik mm-hmm. mm-hmm. mu ko ci hadis wéy ko yonentu soo ko jàkk yoon wu njëkk nee na noo mën a mën a toll da tiit ndax xaybatoom a la waaye soo ko miinee jaxasoog moom moo lay gën a laa naag li ci biiram amma muxaalituhu fa zaidu raham noo ko gën a miinee gën koo sopp xaleel nag hmm. ñaareel moom hmm. mooy gën a mën a ñemee hmm. kuñ war a wekk lu tax ndax matagut ndax matagut gaynde ba mu nekkee ci buntu dëkk bi xale bi di ko sànni doom yi mer bëgg dal ci xale bi mu ne leen déedéet bàyyi leen ko naka la baay bi génnee gis ne doom jaa ngi sànni ak a foog xal gaynde mm. naka la ni jàkk mm. situation ba rek daal di daanu xëm mm-hmm. gaynde gi ne doom ji këlee ñu xam mm-hmm. Mm-hmm. waaw moo tax ndaw ñi ñoo ko mënoon a ndax ñoom ñoo ko ñemee di xoola ko xoolaat te rewut nag yàlla def na ci leer goo xam ne mu mm. ngi ci kanamam boo ne ko jàkk foog nga sëgg mag ñi nag rus nañ ko ne jàkk mm. te buñ ne ko jàkk foog ñu sëgg mm. moo tax ñu bari ci ñoom mënuñ koo décrire mm-hmm. xale yi nag rusuñ ko ne jàkk mm-hmm. donte buñ ko ne jàkk mënuñoo tenir danañ sëgg danañ am luñ for ci moom bu mën koo wax nit ñi mm-hmm. nee na laayu moo nee na ani nabi moom anas jëlee na ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa yuuminu mm. du gëm mm. gëm gu mat boog mm-hmm. ahadukum kenn ci yéen mm. xatta yuhibba gaaya la xatta gi feeg bëggut mm-hmm. Mm-hmm. xatta yuhibba bata mu bëggee li axiihi ñeel mbokkam mu bëggal ko maa la nga xam ne yuhibbu bëggal na ko li nafsihi ñeel boppam rawaahu albuxaariyu wa muslimun lu tax ñu koy taawil ne laa yuminu ay laa yakmulu imaanu ahadikum wala laa yatimmu lu tax ñu koy tawile lool ndax ki saxal ne yàlla yàlla te di jëfee yim digale ci jullee ki woor hmm. rekk hmm. hmm. saxal nañ ne gëm na saxal nañ ne gëm na moo tax dàq gim ko dàq dafay euh, wane ne dàquk mët la waaye du dàqu jëmmi ngëm ci boppam ndax ngëm dafay yokk di wàññeeku moo tax ñi nga xam ne dañuy bañ taawil buñ duggee ci yu mel ni am jafe-jafe danaa dégg ñuy nettali ne alaaji ibrahima ñës radiallahu anhu mos naa dem makka mufti ja ko wax ne ko yéen dégg naa ne da di taawil alquran mu ne ko waaw mu ne ko alquran kenn du ko taawil ni ñu ne alaaji ibrahima ñës ne ko hmm. nooy déggee wax yàlla jim ne hmm. man kaana fi fi hadihi hmm. fi laxirati ama ama fa huwa fi laxirati ama ku dog gumba ci àdduna alaxira gumba ngay dox te mufti ja ñu Cheikh Abdullah Aziz Ben Baas la te moom ay bëtam dafa sëggoon mu ne ko loolu lim ci jublu mooy gumbaay xol mu ne ko nag taawil nga waaw taawil yonentu sallallahu alayhi wa ne allahumma faqihu fi diini ñaanal ko seydina abdullahi abbas yàlla yàlla na ko déggloo diine wa allimhu tawil te nga xamal ko taawil am na yoo xam ne soo ko taawilut doo ko firi yàlla wax na ne fa ida qara'ta alqur'ana mm-hmm. fasta'iz billahi min alcheytaani arrajim mm-hmm. soo ko taawilul dafay mel ni ko da ngay jàng boo jàngee alquran ba noppi mm-hmm. fasta'iz billahi ngay soog a muslu min alcheytaani arrajim taawil li ida aradta qiraata alquran fa ida qara'ta soo nammee jàngal alquran léegi taawil jooju luy wane ne dalil mooy yonantu sallallahu alayhi wa sallam bu hmm. daa jàng hmm. daan muslu hmm. waaye daanul xaar ba jàng ba pare sooga muslu wala wax yàlla ju ne yaa ayuha amanu ida qumtumu ila lsolati faxsilu wujuhakum bu ngeen nammee jog julli bokk waaye bu fekkee da nga ne ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum mm. boo ko boo ca ida aradtumul qiyaama mm. ilayha mm. doo ko mën a dégg ndax foog nga jàpp soog a julli doo taxawee julli ba pare soog a jàpp mm-hmm. kon taawil mënta ñàkk waaye na taawil ji tegee ci yoon rek mm-hmm. bu mu nekk taawilu sama xel lii la ma jox nekk taawilu hmm. mën naa ci déggee lii rek te hmm. fekk amul teguwaay hmm. waaye fokk mu nekk taawil bu am teguwaay kon imaan dafay e, mët dafay wàññeeku ba lompoñ dafay yokkut moo tax jëf dafay matal dafay yokk imaan ba matal ko bu dee jëf ju baax la jëf dafay wàññi imaan ba rey mm. jëf ju bon la mm. Mm. sama borom eh, nee na wa maa kaana allahu li yudiia imaanakum kon imaan sax yàlla nga tuddee jëf fi ndax foofu mooy ay salaatakum ila baytil maqdisi ba yàlla sope qibla am ñu ne waaw ñi dee nag fekk ñu ngi doon jublu baytul maqdis mm. yàlla ne wa ma kaana allahu li yudia imaanakum mm. julli yooyu ñu daan julli mm. jëmee baytul maqdis du ko mm-hmm. kon foofu taawil nañ sax iman baatu mm-hmm. ci boppam yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne na juróom ñaar fukki shucbatu ak lëf bidcun wa sabcuuna shucba mm-hmm. mu ne ba ca gën a kawe mooy wax laa ilaha illallah mhm. ba ca gën a suufe mooy dañal lor mhm. ci yoon yi jaamu yàlla yi di jaar mhm. mu ne wal xayaau shubatun min al iman ngëm yàlla xaaj la ci liimaan hmm? laa ilaha illallah moo ci gën a kawe bu fekkee danga ko wax gëm ko jëfe jëf joo jëfatiit ci jëfi mbaax yi mm. mën na dugg ci imaan mm-hmm. Mm. Mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne mm. ku bëgg yàlla soril ko safara wala ku bëgg ñu soril ko safara tam dugg aljanna na dikkal dee fekk mu ngi gëm yàlla ko bi yonentam mm-hmm. te na dikkee nit ñi nim bëggee ni ni mu bëggee ñu dikkee ko mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. wal yati ila nnaasi mm-hmm. maa yuxibu an yuta ilayhi maa yuxibu an yuta ilayhi kon dàq dara dana am fekk mat ga la ñuy dàq laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axihi ak laa yuminu man laa yamanu mm. jaaruhu bawaiqahu Mm-hmm. kii dëkkandooram muccut mm. wóoluwut ay e, musibaam mm. nga ma métut mm-hmm. niki laa salaat bi xadrati mm. taamin mm-hmm. lañ doon wax keroog yonentu nee na laa salaata déet julli bi xadrati taam ci teewaayu ñam maanaam ki julli fekk ñam waa ngi teew amul julli am na julli kay mm-hmm. waaye julli ga matut la bëgg a wax mm-hmm. ay la salaata kaamila mm-hmm. lu tax parce que kii julli tey xelamang ci ñam wi loolo dana wàññi teewloom dana wàññi yoolam kon nag dàq dara te fekk dàquk mët nga ca jublu dafay am loolu la yonentu sallallahu alayhi wa sallam jublu fii beneen leçon bi ñuy jàngee ci xadis ji mooy sopp gi ma la war a sopp mm, mm. comme ni ma soppee sama bopp mm. dafa war luy tegtalu ne dafa war ndax dàq giñ ma dàqal liimaan ci bu ma la soppeewu ni ma soppee sama bopp mooy wane ne sopp la ni ma soppee sama bopp bëggal la li ma bëggal sama bopp dafa war mm-hmm. Hmm? ndax liimaan duñ ko dàq mukk hmm. lu dul suñu faatalee lu war hmm. liimaan du dàqu mukk lu dul ci faatu lu war walla ci amuk luy dàqwanteeg moom bëgg bëggal sama mbokk li ma bëggal sama bopp dafay dàqwanteeg liimaan kon bëgg ko ni ma ko bëggalee sama bopp mm. dafay nekk waajib mm-hmm. laa yuminu ahadukum xata mm. yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsi mm-hmm. danañ jànge ci xadis ji mm. wëttandiku gi ñu war a wëttandiku kañaan mm-hmm. ndax ki añaan bëggalul mbokkam lim bëggal boppam ndax añaan boroom xam-xam yi firee nañ ko ay firi hmm. am na ñu ne mooy tamanni zawali nicmati hmm. anil xayri hmm. mooy mébét xéewal gi ci loxol jàmbur wala loxol ki xamee xéewal nga mébét mu dañ yéene gi ma la li nga xamee nga ñàkk ko ñu ne loolu lay añaan Hmm? ñeneen ñi ne déedéet añaan mooy karahatu ma an'ama allahu bihi ala gayri yàlla xéewalee keneen sib gi nga ko sib rek kañaan la waaye ñaari sorewuñ ndax ki nga sib lim xamee mébét nga mu ñàkk ko hmm? ki nga mébét mu ñàkk xewal kooku tegtal la ci ne bëggaloo ko li nga bëggal sa bopp waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. tax alxasuudu laa yasuudu aji añaan du nekk sang mukk eh, te kiy tooñ te gën a niru ku ñuy tooñ mooy aji añaan ndax ku ñu tooñ bokk na ci li ñu xamee dañ laa tooñ mooy nga mer nga am mettit ngay souffrir mm-hmm. yooyu yëpp nag ci ki añaan rek la dajee mm-hmm. moom mooy tooñ mooy mer mm-hmm. ndax bés bu set la mu yéene mbokkam mu ñàkk ko yàlla du ko ca topp bés bu set muy gis ka mu yéene du am yàlla di ko jox ndax yàlla kat topput nit ñi ci li muy def su ko defee foo ko fekk moom mooy mer te ki añaan moom mm. kañaan nga sax mën na ko yóbbu ci ak kéeféer mm. lu tax hmm. parce que ki añaan dafa ne yàlla hmm. Moodu Fàllu mii nga jox hmm. mérité wut li nga ko jox man mii maa ko mérité loolu mooy yàlla da ngaa juum te ku juum loo yàlla yéeféer ko tax añaan bokk na ci bàkkaar yi gën a mag bokk na ci bàkkaar yi gën a mën a alak jaam bi ci àdduna balaa alaaxira Mm-hmm. li ñu jànge ci hadis ji bokk na ci mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. méthode wax bi muy jëfandikoo te mooy tëggee wax ji noo xam ne dafay yen ki muy waxal mu jëfe ko daf lay xër ci biir wax ji dangay gis lu lay motive pour yow miy déglu wax ji nga jëfee ko mm-hmm. Mm-hmm. looloy lan mm-hmm. baatu li axiihi hmm? ki nga foog ne sa noon la ki nga foog ne sa wujj la ki nga foog ne sa dégg nga compétiteur la ki nga foog ne ki nga foog ne mu yonentu tuddee ko sa mbokk hmm? sa mbokk maanaam koo gis rek jàppal ne sa mbokk la te nit wolof nag nee nit mbokkam mm, mm. gannaaw sa mbokk mm. da koy yéene mbaax kon koo gis xamal ne sa mbokk la yéene ko mbaax li nga yéene sa bopp moo mu ne laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axihi waxut li xayrihi bu ne la li axihi mu ngi lay fàttali uxuwatu gi mi ngi mel ni li yàlla wax ci alquran fa man ufiya lahu min axihi shay te boobu mi ngi wax ci wàllu rek mm-hmm. Hmm. fa man ufiya lahu min axiihi shay xam nga hmm. ki rey hmm. ñu lay fàttali na sa mbokk la te moom xaatil la am na lu mu nga bàyyi ko xel mi ngi lay soppuloo dégg nga ak di la ñeewantal ci nga ci ki nga xam ne moom la ñuy waxal nga fàtte bakkaaru ak crime rey gi bàyyi sa xel ci li nga bokk ak moom dana tax nga mën koo baal léegi nag mën nañoo wax ne ah lii de wax koo gën a yomb mën nañoo wax ne lii dee wax koo gën a yomb nga yéene koo xam ne nii duut yow li nga xam mu xam ko mbaa sax mu ëppale la li nga am mu am ko mbaa sax mu ëppale la wala muy borom alal ak nangam am nañu loolu loolu mën naa ne ah loolu yombut de yombut mm-hmm. su fekkee ne tàggatoo ci sa bopp mm-hmm. alaaji ibrahima ñes mooy wax ne maqaama moo gis njël mm-hmm. benn nga day am takalluf dafay am toggoo waaye boo ca tàggatee sa bopp rek mu nekk maqaama léegi léeg di nga sawar génn gis kuy saraxee nga sarax ko léeg-léeg nga génn gis kuy saraxu mm. euh, nga sarax ko mm. waaye léeg nga gis kuy saraxu nga romb ko mm. xaal mooy tax ngay def loolu mm-hmm. daf lay dikkal mm-hmm. nga saraxe mm-hmm. mu dikkal la nga baaxee kenn mu dikkal la su fekkee nag toggoo nga ne ba ma génnee ala fokk danaa def ko muy loo xam ne ni warloo nga sa bopp dootoo ko fekk nekk na maqaama dootoo ko ki tamit su fekkee ne na boppam ci bëggal mbokkam lim bëggal boppam hmm. loo koo gis rek hmm. mu xamee dara sa bakkan bëgg laa wax ne la añaanee ko hmm. nga ñaanal ko yàlla yàlla saxal ko te yokk ko waaw léeg-léeg sax nga woo ko daal di ko félicité li nga li sa bakkan bëggul nga def ko yépp nga def ko bu yàggee rek mu nekk maqaama sax xaal mooy loo xam day ñëw ak a dem maqaama mooy mooy lu sax gisuloo sax bus station yi wala xitaar yi train station yi mm. station mooy maqaam ndax mm-hmm. yooyu dañoo sax te dangay bàyyi ñëw dem waaye station ba moom du dem mm-hmm. Mm-hmm. loolu kon lu mët bàyyi xel la ki nga xam ne nag mm. dafa bëgg lu yomb topp bakkanam mm. kooku moom dana jafe ci moom ndax bakkan la ammaaratum bi suu la yàlla wax wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaaratum bi suu waaye boo ko tàggatee moom bakkan bi nag dana mm. dem ba mm. bu bëggee def dara sax mu yedd la mm. laa uqsimu bi yawmal qiyaamati wala uqsimu bi nafsi lawaamati -hmm. bakkan bi nga xam ne yegg na ci uh, bu boroomam bëggee def ñaawteef mu yedd ko kooku bakkan bu consciente -hmm. moo tax yàlla jox ko maqaamaay gën ci moom -hmm. bakkan nag bu yeggee foofu rek sama borom commencé ko Eh, yankawal mm-hmm. mu nekk an nafsul mulhama mm-hmm. yankawal ko mbaax mm-hmm. mu ne ca yankawal ko mbon mu moytu ko fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bu toppee mbaax ganat continuer ca ba yëf yi nekkoon xaal ci moom nekk maqaama léegi nag mu nekk an nafsul mutmainna yaa ayatuha an nafsul mutmainna alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dicrillah ala bi dicrillahi nekk na ci zikr moo xam zikru wax la moo xam zikru jëf la moo xam zikru xaal la ba xol bi nag dal yàlla nag ne ko léegi laa la soxla boobu ba léegi ci nafs ci amaaratu ci lawaamatu ci mulhamatu ba ci mutmainatu ci sa bopp nga neexoon léegi nag mu mën ngaa dugg si mm-hmm. irjii ila rabbika raadiya mm-hmm. fexeel ba lu ma defati mu neex la mm-hmm. soo nekk ba nafsu bi yeggee ci martaba nafsu raadiya mm. yàlla fexe ba lu bakkan bi defati mu neex yàlla nee nañ imaam Shaafi nee na doo nekk mardiya fekk nga nekk raadiya boobaa bakkan bi dootul mën a defati lu neexul yàlla bakkan bi toll noonu nag mooy mm. an nafsul kaamilatu wadxuli fi ibaadi mhm. wadxuli jannati ñooñu mhm. nga ne yàlla wax na ne mhm. ya seytaan leen dara ñooy ñooy jaamam yi inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan fekk seytaan yi ñuy mënal dara rek yeggaguñ foofu yal nañ fa yegg ñun ñëpp yàlla barke ci euh, Cheikh Ibnu mu ne waa léegi nag taalibe bi nga xam ne maanaam étudiant bi nga xam ne moom mbokkam ñu ngi ci classe bi di def exemple hmm. te man xam naa tontu bi hmm. ndax bu ma ko ko waxee hmm. pour mu paase ndax loolu dañ koy dugal ci bëggal sama mbokk li ma bëggal sama bopp déedéet loolu riche nga koy dugal maanaam yaa ngi koy dugal ci mu mu sàcc ndax sàcc dafa xaram yi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man ghashana fa laysa minna kooku ñaawal la sax jëm ci moom dimbale woo ko mm. boo ko doon dimbale da nga naan jàngal mm. ci biir jàng may lam xamut nga xamal ko mm. waaye bu demee ci ba ci sa saalu exemple boo xam ne dafa am ay condition te yonentu nee na al muminuuna ala shurutihim nga bëtt condition yooyu ci xujjatu ne dama koy dimbale déedéet yow yaa ngi koy dimbale ci xuruj mm-hmm. yaa ngi koy dimbale ci xor mm-hmm. yaa ngi koy dimbale ci pexe yu baaxut mm-hmm. loolu du fa dugg du noonu kon nag min xusni wala nu mu tuddati laa yuminu ahadukum xata yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi xadis la ju ama am solo kon nañu yàlla boole ci ñooñu te dëggalal ñu suñu ngëm te matalal ñu ko ala sallallahu ala sayidina muhammadin wala alihi wa sahbihi wa sallam leer na